Lac de laa Lac de Guiers bu neexoon Balla Gaye Balla Gaye bu ko neexoon suba Lac de Guiers bëri barki yonent yàlla bi li may wax lu wóor laa lay wax ndax yow mënoo ñëw si làmb nga jël cinq avance six avance ana seeneen mbëru yi nga xamante ne ñoom nga seqal affaire bi dañoo am partagé loolu dafa bokk si loo xamante ne da ngay teg cent pour cent mais ñëw si làmb nga ne lépp yaa koy lekk c'est impossible nga ne ñëpp dañuy taxaw pour jàppale la di la seetaan mel ni ñeneen ñi duñ ay mbër wala amuñ benn passion wala amuñ dara luñ bëgg. jërë ngeen jëf ah, mbokku internetu Actubuzz ah, ñu amati li nga xamante ne mooy mbégte ak kontaante saa su nekk. tey ñu ngi dalal ki nga xamante ne mooy ah, njaga doole di ndaanaan ci làmb di xale boo xamante ne am lu def ci làmb lu bare bare bare bëri mais nee naa la nag tey ñu fas yéene waxtaan ak Ndiaga doole ci ah ci côté làmb ci ay xale yoo xamante ne tey ñoo ñoom ah ñoo déppatindoo ci làmb ji ndaanaan la ci côté bëre gis nga li nga xamante ne fan yi passé la daan ki nga xamante mooy ñaari yaar ah mu nekk fële si stade bi nga xamante ne mooy stade bu Amadou Bari ci ah yi nga xamante ne mooy 100 pour cent gi jëwaay yi ñu tëggoon booba ak léegi ñu gis Ndiaga Dolé toog lan la Ndiaga Dolé tax bëriwut ah, ci waxtaan ak moom booba léegi lan moo tax doole Dolé booba léegi mu toog bëriwut dañ waxtaan ak moom ah, diggante moom ak Serigne Ndiaye ah ak yeneen yeneen combat yu bëri yoo xam ne ay adversaire wax na a bëri ak ñoom Ndiaga ñu ngi lay maa ngi leen fay di nuyu waa Sénégal ñëpp di nuyu képp koo xamante ne mu ngi suivre site bi Dakar Buzz. Dakar Actu Buzz. Mhm. waa di nuyu waa Géewaay. ginnaaw bañ sant yàlla julli seenante bi sant suñu ñaari waajur. di ñaanal sama sëriñ sëriñ Aliou Limane yàlla bàyyi ko fi. di ñaanal Cheikh Mahfou Serif Ba. mooy xalifa Cheikh Mahfou di ko ñaanal yàlla. yéen bi ayob si kawam di ñaanal njabootu Cheikh Mahfou gi yëpp. rawatina waa Ngumba Ngewul. di ñaanal sëriñ bi fa nekk yëpp képp kuy taxaw njabootu Soxna Sall Biro ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm di nuyu nag suñu xarit suñu lépp di suñu xarit ci kër gi di suñu kilifa xaarim Jaañ mu Yaasin Dukure suñu lépp la kooku du ma def dara duma ko tudd ndax bu ma toogee tey nam ma dara rek moom moo ko waral moom mooy sama patron ci côté yu bari xaarim Jaañ mu Yaasin Dukure amuñ sa fay waaw di ñaanal sama papa fi mu tëdd nag yàlla na ko yàlla xaaree àjjana di ko ñaanal Pape Baye Cheikh di ko ñaanal Père Ndiaga saar fi ñu tëdd yàlla na leen yàlla xaare àjjana ak mbépp ak mboolem bépp baay bu mu fa bàyyee bu mu fekk rek yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak mboolem aji dawlu waa di leen fay nag bu baax a baax di kontaan si invitation bi. jërëjëf Ndiaga Dollé loolu am na solo lool lool Ndiaga jigi ba nga jugee si sa combat ak ki nga xamante ne mooy ñaari yaar ba ba léegi lan la toogaay bi ak retard bi am na ay combat yoo xamante ne ay adversaire potentiel yi nga war a bëreel lan moo war a ba ba léegi ko combat am problème. waaw combat yi damaa jàpp ni daa yëg seegul rek waaw ndax njaga moom kenn mënatu koo génne ci làmb ji ndax ku def quinze combat am deux défaites morom ñu fi nga daan leen kon kenn naataab dem mbër nga wal doo mbër waaye nag ren combat nag damaa jàpp ni ci gars yi la moom ku ne xam nañ dañoo naqari wutal adversaire waaw moo tax tamit dañuy jàpp ni amuñ combat de dëgg la neexuñu de. mais dañu jàppantaa jorgul mais ñi mën a bëreel si làmb bari na. tey si xale yoo xam ne noonu la demee. combat bi parce que gis nañ li nga xamante sama waa koñ te dootuñu nelawatuñ fu ma tourné mbër combat mbër combat. mais dafa toll fekk foo xamante ne mbër mënul tëggal boppam komba mbër mënul tëggal boppam promoteur mooy tëgg combat instant yi daal njaga daal mu ngi si ruqam gis nga ko fi ko fekk chaque instant day entraîné. di entraîné di wàcc bëri dóor bi doxul maay simple bi aw ma dara lu may xaar si làmb ndax xale laa nekk si yoon noonu la demee sa euh, sa combat sa diggante ak li nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye bu Fass ñu bari foog sa dina taxaw gi parce que nekkoon combat yi ñu bëggoon ñu gis ki xamante ne sa diggante ak Forza tamit ñu ko lam ñu ne njàngatule ak Forza war nañoo mën a bëre Forza dem jël ki nga xamante ne mooy Franc ay ñoom coins bari na ay adversaires yoo xamante ne ñu tey ñoo xamante ne say adversaires yoo war a mën a laal ñu war a mën a bëreel ay Cobra ak ñeneen ñi et cetera bari na ay combats yoo war nga mën a bëre ak ñoom lan la boobu ak léegi. dëgg la làmb ñi ma fa a bëre bari na. ku mel ni coins. Cobra 2. Serigne Ndiaye ah, ah, lamb ji man maanaam ñi mën a bëreel bari na. mais gars yi problème mooy doo comprendre ay jën kay re lamb ñi ma a bëri bëri na de ak ma fee bëri adversaire sax si làmb mais gars yi si boobu man xaw ma nañ maa seexlu xaw ma nu mu fa demee noonu njaga daal problème mooy adversaire yi nga xamante ne ñoo ko war a jël ñoo ko fi bàyyi di xool lu nooy xaw man moom ku ne xam na ni man sama 15 combats yu ma bëree musuma am bu yomb sama combat yëpp ay njëriñam la combat yëpp da ngay ñëw na nga xeex di nga bëri la suñu borom def nag moo koy xam man daal maa ngi ngir làmb maag doomu dànk combat bu neex la. combat dàqul loolu maama yaa combat la. yaa may dégg man problème mooy bëri naa ñu ma mën a bëreel. mais mbër yi ci boppam ñooy taamonte xam nga doomu dànk boo ko ne woon yaa ngi tey danaan maa raw moo tax raw ma de ñoo débuté woon doo làmb rek moo ñoo ma xaw a ci làmb tuuti mais fekk naa leen fa mais problème mooy ñoom kenn ku ne day jéem a xëcc kaw te ku ne xam nañ sa kaw fees na. ci kaw ña fa nekk ñëpp daanaka am nañ combat. Ah, kon ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ay espoir kenn mënu maa génne si espoiru làmb nag xëy na nag su ma toogee kenn gisuma si làmb gëj am combat moo ko waral mais fu ma toll maa ngi si actualité làmb maa ngi samay entraînement maa ngi samay business toog jàpp sama ñaambur bañ ko ma yeb adversaire yi fi lim nag ku mel ni Gris moom ku mel ni Gris jox nañ la seet nañ la jox la sama avance ay yooni yoon ah ñëwal ñu bëri maa yow ay morom lañ combat bu neex la Gris 2 yow laay waxal man maa wax ak yow du nee nga gaa yi dañ lay daw man njaga maa la laaj boo jëlee sama avance ma duma la daan la aw ma dara lu ma see xalaat boo jëlee sama avance laa la wax de dinaa la duma dinaa la daan mu lay neex mu lay naqari. ñaari cargo ngeen yaa ak Serigne Ndiaye de ma de yéen yéen a fi nekk di xalaat ay fii wala faa mais man yéen ñaar képp ku si jël sama avance dootoo ko dolli sa àdduna. daa mel da sànni sa ngemb faas. non dégguloo ma de bu dul faas. bu dul Fass ndax xam la ma problème Fass samay adversaire ñoo fa nekk man du question ay Fass ak ay kii dégguloo ma de man làmb ji man seexlu ma benn écrit pour lu géejewaay amul fii amul faa awma ay gaañu mbër ay lii wala laa làmb ku ma boole dañuy business dañuy liggéey nekk ma fi di xaritoog benn mbër naan du ma kii wala kii ce soit ak alpha ku ma xam daal xam ne waa géejewaay laa fi bàyyi comme ay comme ñoo xamante ne ba leen fi bàyyi bañ a bëri ñoom si arène bi commencé tey leen mbapat yi sax dañ koy bëre ndax amul loo xamante ne mooy ndax ñun làmb la ñu dund dund ma leneen lu làmb mbëri nag ñëw la ñu bëri njaga moom ngeen jël ko day bëri ngeen jël ko day bëri ndax bu arène bi ñëwul tamit maa ngi simple bi aw ren moom aw ma dara lu may xaar si làmb ren bu ngeen bëggee dégg-dëgg aw ma dara loo xamante dama koy xaar si adversaire yi wala lii ku ñëwul maa ngi simple bi jërëjëf Ndiaga jërëjëf Ndiaga loolu am na solo ah gars yi nag man li may waxtaan ak yéen mooy ah, li nga xamante ne mooy Ndiaga doole ah, war ngeen mën a jël Ndiaga Dolé ngeen compétir ak moom parce que xale la boo xamante ne tey ah, yaakaaru làmb la day def bëre bëre ci làmb mais Ndiaga Dolé tey euh, noo gisee jamono yu 100 pour cent yi am ci jamono ji ay 100 pour cent Guédiawaye 100 pour 100 euh, pour cent Parcelles 200 pour cent pour Pikine ah jamono ji gis ngeen organisation fan yi passé benn marché ah sa mooy 100 pour cent Parcelles ak 100 pour cent loolu waaw ñun loolu dañ koy rafetlu ndax fii tey bu ñuy wax ay 100 pour cent rek Guédiawaye ñoo fi njëkk a organiser 100 pour cent ñoo ko gën a créer mais par le moins 100 pour cent yi ngay dégg Guédiawaye jamono ji amul lu fa dëggu dañuy sàmbalaan yi rek. Mm. ku ne di wax fii ku ne di kii ku gis sa moroom di xaw a kii maanaam gis nga doomu aadama duñ doxee noonu man jàpp naa ne tey bu fekkee dañoo ne 100 pour cent Guédiawaye mm. mbër yëpp war nañ mën rajaloo kenn ku ne génne li nekk sa xol ngeen gas ko ba mu xuut suul ngeen ànd fa yéene bokk fas yéene bokk ndey ak baay mm. ginnaaw yàlla def. ba ngeen bëree yéen ñaar yéen yéen ñëpp kon waroon na mën a neex ratax mais 100 pour yi ngay gis géejawaay jamono ji ay sàmbalaa fa am ku waxul dëgg nag wax fen ay naxante fi am ay ñu taxaw fii naan dañuy kere ay lii kere la dara du si dëgg dara nekkul loo xamante ne dese dëggu la ala wax 100 pour cent kum gën na nga wax loo neex mais njaga li mu gis lay wax. mais lan moo waral mais xam nga tamit mbëri pour nga canaliser leen dafa jafe. tey ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite affaire yi nekk ci kaw bu ñu yoroon esprit tey uuf seen ndax nañ leen war a uufee tey ñun ñëpp tey ku génn rek tey bu benn mbëri ne a ñëpp dañ naan a yaa may dégg tey bu ñëpp ne a dañ naan a mais tey gis nga mbëri fi nekk tey ñi nga xamante ne ñoo fi nekk suñu grand tey si làmb ji seeni bopp rek lañ fi nekkal tey koo fi nekk di sonn si bëtam bësëm sax bu paree fàtte na la fàtte na yow jeune espoir bi nga xamante ne da nga war a xalaat te damaa yaakaar ne làmb ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy VIP lu ñu tudd jamono ñi lépp lu am si làmb dañoo war a taxaw faaytal làmb ngir seen raq yi nga xamante ne ñoo ne si yoon bi ndax ñun tey bu ñu ñëwee ëllëg toll fi ñu toll mun a faaytal suñu raq yi nga xamante ne ñoo war a jël suñu relève mais xam nga mbëru làmb moo bëggul moo buggul relève làmb ji VIP yi fi léegi kenn bëgg fi relève buñ sañoon dañuy daan di daan di daan di daan ba di ñuy bàyyee bëri. loolu moom moo tax làmb côté boobu du fa mus a jag ndax problème mooy gi nga lee da ngay nekk koo xamante ne say tànk lay yaroo màgg bu ci bu commencé tolloog yow doole wala nga dem di bëreeg moom muy commencé métti yaa ngi koy commencé bàyyi xel léegi boo gàttee xel kooku daanaka yow noonu nga koy def mhm. la war si moom pour nga jàppale xam ni kii champion la xam ni kii dafa nekk ténor boo xamante ne war nga ko mën a génne doo ko génne de da ngay toog doo ko lijjanti doo wax lu jëm si moom te yow boo amee combat ñoom ñoo si rey seen bopp. guddeeg bëccëg subaa ngoon loolu moo fi am quoi léegi loolu moo tax nag suñ 100 pour cent géej waaye dëggu moom amu fa. gaa yi dañuy sàmbalaan yi daje di wax si caméra yi bu leen caméra tiimee kenn ku ne di wax loo xamante ne gëmoo ko loolu moo fa am. mais ñu gis euh, njaga ci ci combat yi nga xamante ne mooy yi passé nii nii gis nañ euh, ci combat Balla Gaye Gris Bordeaux ay jamono dañu gis ay combat Balla préparation yu bari yaag Balla Gaye yéen si nekk am parce que dafa dem maa ngi dégg si benn communiqué ñu ngi naan euh, njaga moo xaw a moo tu gaañoon Balla Gaye ci ndiggi léegi affaire yooyu noonu mooy diggante moo Bombardier ci combat yi passé mais gis combat bi nii passé gis ñu benn yoon njaga doole ak Balla lan moo xew sa diggante ak foofu jàpp man dara xew na sama diggante mm-hmm. ndax man moom du ma n'importe qui quoi man mosuma toog ak Balla di photo wala may nekk moom di sanap wala may nekk moom si ay affaires yoo xamante ne dama ko jàppee star suñ borom nag defal na ko li mu koy defal bari kenn mënus dara mais ñun bu ñuy ànd tey la ñuy ànd. Balla am combat di jël téléphone am ma woo. waaw combat mo Gris Bordeaux bi jëlu téléphone am moo tax ñëwuma ko man nag ñàkk ma fayda ñàkk fayda goo xamante ne woowoo moo ñëw naan damay sonn si yow du ko defal kenn. li ba fi nekkoon démb ak barki démb naan géejawaay nii géejawaay naa loolu moom moo jeex amatul si njaga wax day leer dama doon sonn si ay nit démb barki démb. Mhm. di ko def ngir géejawaay ngir kii mais boo demee bay sonn si nit te nit kook xamul sa valeur xamul sa gëdd kon bu la neexee nga reculer quoi pour xoolaat sa bopp tey jii ñun Balla Gaye guddul nañ ko bëccëgal nañ ko si côté bépp mais jàppale gi nga xamante ne moo ko waroon suñu diggante ak ñoom ko defoon kon dépassé nañ fii ndax Balla Gaye amul barrage amul VIP boo xamante ne mën na teg ay barrage am te moonte ay champion donc dara ku mel ni man ay sama yeneen moroom yoo xamante ne tey ñu ngi woon ci wetam démb ak barki démb mais tey ñëpp tey ku nekk si wetam rek da ngay jékki-jékki éloigné kii daal baaxul kii du jàppale kenn kii nangam sangam di expliquer ay détails ñu nag dañ fa doon xaar loolu ndax problème mooy doole xale ndaw la waa ñun nag xalaatuñu jël suñu live di ko teg si koo xamante ne. dañuy nekk si yow di la sonnal guddeeg bëccëg suba ak ngoon te xalaatoo gestu say raq wala xalaatoo gestu si ñoo xamante ne jàpp nga ne ay ténor lañ ñoo xamante ne jàpp nga ne ëllëg mun nañoo mun nañoo ëpp làmb moo tax tamit ñun nekkatuñu fi tey jii di sonnal benn mbër boo xamante ne si ay détails mu nekk mbëru géey waaye mu nekk mbëru feneen mbër bu fi xew la nag sama woowee ngir business ginnaaw làmb ci business lañ ko jàppee ku fi jël sa avance aat noonu neex bu mu génne cent franc jox la yaa may dëgg dañ doon sonn si ay nit démb ak barki démb te duñ génn seen ñaar fukk duñu ko jox ñu ñee bool lu ñu neex lu ñu naqari di sàmm suñu ngor yaa may dëgg di nekk ak yow muy métt muy naqari te kenn du ñu xamal dara kon nag bi biñ toll nii dañoo jël suñu matuwaay wow koŋ si làmb ji ginnaaw toll nañ ñu ñoom dëgg la de amuñ jàppale bi de waaye ku ñëwee dañ laa dee làmb ji nag papaay kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko liggéey gëm sa bopp moo fi am. fii boo liggéeyee li nga war a liggéey teg li nga war a teg ni ñi jàppal la nga dem sa mais léeg sa xol moo lay tooñ da ngay ñëw di tarbiyu nit jàppee nit comme sa bopp te ka nga jàppee ni sa bopp mu bugg la jàppee benn dof wala benn waaya waaya yaa ngi nax sa bopp bu leen jàpp ni yéen ñi nga xam ne yéen nekk si kaw yéen rek yéen a taxaw pour teral seen i waajur ñi ngeen toogee seen i mbokk yaakaar leen seen i mag seen i waajur ñun ñi noonu lañ toogee suñuy mbokk ak suñuy mag suñuy suñuy raq ak suñuy waajur yaakaar ñu si làmb te ñu war leen see teral nag te yaakaaruñ ci mbindeef ndax li ñuy wax dañoo gëm suñu bopp moo tax ñu koy wax ñëwuñu fii di wokk wokk wala ñuy jëm góos wala ñuy jëm droite ndax li ma laaj laa lay tontu. Balla Gaye ñun bañ koy sonnal boobu ñun waaye moo taxoon ñuy rey suñu bopp bëri na fi ak ma kaalawu kama dugg nekk moom ba si biir géew gi te bokkuñu écrit maa ngi écrit Père Ndiaga moom mi ngi école Balla dama doon sacrifier loo xamante ne CNG ma gisee mën na ma sa aj avis tey ma CNG ajoon avis nu muy mujjee koo xamante ne da nekk ak moom ay ati ati at di sonn si ay mbërëm mosul taxaw pour jàppal la benn côté yow sa côté avancement sa benn côté mosoo ko sentir kon kooku tey yow mi nga xamante ne yaa doon sacrifier sa bopp tey buñ la ajoon da lay fàtte nañ waxante dëgg waaye tamit yàlla dimbal nañu bat seen combat yi woowuñ ma mais doole naa sant yàlla bu baax a baax ndax dañ la woo ngay nekk sa ay pression nekk sa ay coono. guddeeg bëccëg suba ak ngoon doo tara nelaw doo tal sa njaboot doo tal dara ngir liñ la woo da ngay dem ba jeex bëgg ndam di xuloog moom guddeeg bëccëg suba ak ngoon mbër entraînement mbër bul bàyyi nangam sangam nekk seek moom dem ba jeex mais combat yi passé nii dama si amaat beneen jàngat boo xamante ne njaga war na mën a tal boppam mais pas ay jàmbur pas ay ñeneen ak ñeneen ndax instant yi nii loolu laa soxla quoi instant maa ngi foofu. mais am na yeneen combat yi ne si kanam Balla Gaye Balla Gaye Boy Niang combat yu euh, tey nga am cargo bu mel ne njaga tey gisoo ko tey ci combat yu mel noonu tamit ci côté li nga mooy ci contact ak yeneen ak yeneen jàppale ko ci tamit mais est-ce que tamit jarul moom mu woo la dina la woo pour ngeen waxtaan parce que yéen bopp dina bokk géejawaay non man moom boo gisee woowu ñoo damaa jàpp ni ñoom dañoo parewul ndax njaga moom li muy wax du ko làq-làqal ndax Balla Gaye dajale na wa dajale waa na waa écurie mu ngi liggéey ak waa écurie ñun nag ñu ngi biir waay ñun tamit fas yéene dajal waa suñu écrit liggéey ak suñuy raq bu yàlla defee tamit leneen am si leneen da ciy am rek mais fi mu toll nii moom mesure yi mu jël yu ko lañ jël instant bi fas yéene naa taxaw ànd ak samay raq yi nga xamante ne ñoo ko suñu écrit bi ñu ànd liggéey xàccee ndoo dóorandoo da dama doon toog samay raq am komba may bàyyi samay combat raq di dem di ko jàppale du benn du ñaar ñett mais nag nit nag booy dégg da ngay def yenn sacrifice te xamul loolu ah kon nag yow des fois yoon la boo wéetee nga yeddaat sa bopp si ay détails ndax fii nag coow li muy bari bari ku am nag sa kër bàyyi nga koy yóbbu de ko yóbbu kër kenn noonu rek la demee ah yeneen combat mi nag wax dëgg yàlla yeneen combat yi ne si kanam yàlla ko si yàlla defal ndox mu sedd rek waaye ñun moom wax dëgg yàlla instant bii nii nekkatuñu koo xamante ne dañuy nekk di sonn si yow guddeeg bëccëg suba ngoon te mënuñ gis sa bopp si yow. loolu moom xalaatutuma ko sax voilà. ah jërëjëf Ndiaga kàddu yi am na solo Lac de Guiers bu bële lan moo tax amul combat Lac de bokk ci ténor yi war ci làmb ñoom dafa war a bëre lan la. mais lépp si mbër la rek tey lépp si mbër yi la xam nga tey waaye ñun duñ naxante buñ fi nekkee ni naxante tamit ñun la neex Lac de Guiers laa Lac de Guiers bu neexoon Balla Gaye Balla Gaye bu ko neexoon suba Lac de Guiers bëre barki yonent yàlla bi li may wax lu wóor laa lay wax ndax yow mënoo ñëw si làmb. nga jël cinq avance six avance ana seeneen mbëru naataango yi nga xamante ne ñoom nga seqal affaire bi dañoo am esprit partagé loolu dafa bokk si loo xamante ne da ngay teg cent pour cent mais mënoo ñëw si làmb nga ne lépp yaa koy lekk c'est impossible nga ne ñëpp dañuy taxaw pour jàppale la di la seetaan mel ni ñeneen ñi duñ ay mbër wala amuñ benn passion wala amuñ dara luñ bëgg gars yi dañoo dépassé foofu la de guerre tey mook Balla Gaye ñoo bokk ay si côté boobu yëpp ñoom ñoo fa bokk tey jii bu ko neexoon tey yàqal ko ñaari adversaire wax promoteur tëgg ko du si teg baat ndax ku ne xam ne làmb léegi link la ah. link moo fi am. gars yi fi mu toll nii bu ñuy ñëw la def nii sax nga taxaw di jéem a estimé toog di xaar nii gars yi fee dañ lay toog ñu war laa tëggal ñe taxaw fee indiwaat leen suuf loo xamante ne mooy loolu. te la guerre kenn mënu ko génnee si mbër yi ndax dafa prouvé dafa daan ay maasam daan ay moromam daan ay ñum tollool daan ay raqam teg si kon kooku nekkul koo xamante ne dañ ko mën a génnee si làmb mais ñun nag taxawuñ fi maanaam di kaasal kenn dañuy wax actualité rek ndax ñun ñëpp ay mbër la ñun ñoo fara làmb nag ni lay doxee mbër yi nag li tax mënuñ booloo lu mel nii moo ko waral tey jii koo nekkee suruq jox ko million du mos a xalaat moroomam loolu rek loolu rek moo yàq affaire kii lekk moom daa jàpp ne chaque jour moom rek mooy lekk xalaatul ni samay raq ngi ñëw xalaatul ni kii bu ngi ñëw xalaatul kii ngi ñëw seen yoon voilà loolu moo mooy suñu problème. jërëjëf Ndiaga kaddu googu am na solo sama man bi Babacar mu ngi may signalé ne ma li ma amoon si temps bi jeex na euh, di wax Ndiaga tamit lan ngay taxawatoo ak li nga xamante ne mbokku internet yi ak lan ngay wax tamit sa mbokku mbër yi. waaw man daal fi mu toll nii mbiru làmb daal liñ ciy wax. mbëri bokk ndey ak baay yombul nag. waaw xam naa ne mënuñu ko. ginnaaw ñu si kaw. noo xanaa loolu espoir yi nga xamante ne ñoo. espoir yi nga xamante ne. ñoo ay révolutionnaire ah. ñoom ñoo ko mën a dindi mais nekku ñu ci kaw ndax problème mooy ñi ci kaw moom jënd nañ seen baat jënd nañ seen kàddu jënd nañ seen lépp ndax ku ci wax tey kaas dara nit woo la dugal la ci ruq nga fàtte ne am ngay raq yoo xamante ne ñu ngi war a ñëw te ni ngay kaas ngir làmb moo tax te làmb maanaam mbër moo xamul boppam rek chaque jour Fadam 2 maa ngi dégg fan koy wax promoteur mun na ñàkk mbër mbër bëre CNG mun na ñàkk mbër bëre mais mbër bu amul làmb mënul am. voilà kon nag mbër mbër tey mun nga wax ak sa morom mbër ngeen waxante li ngeen waxante. Mhm. ngeen tëgg seen combat. te amul promoteur amul dara. mën ngeen waxante li ngeen waxante ba jógee ngeen tëgg seen combat wër amul seen amul dara. yaa may dégg mais tey làmb bu ñu toogee tey jii ñu naan CNG bi da leen def ni CNG bi da def naa te bu dul làmb CNG du fayeeku kenn du fayeeku kon mbëri ñoo war a xoolaat seen bopp mhm. defar seen taxawaay te xamante ne ñoom kenn mënu leen jiite. ndax ñi dañuy far fii ñee far fee àdduna bi nag def fi far da ngay taxaw di ko jéem a défendre rek léegi ñii dañu naan kii intérêt personnel lay défendre kii intérêt comment intérêt kii noonu rek lay demee ah moo am 100 pour cent dëgg-dëgg si ay mbër yi day nekk lu difficile quoi léeg-léeg nag ñu tolloo niveau nag mën nañoo composer ay quelque temps après kenn ku nekkaa si nga nekk temps bi noonu lay tëddee quoi noonu la fa demee nag léegi nag maa ngi sant di gërëm ku si mel ni suñu père Gomez. waaw père Gomez. moom xaw ma moom moom budul dara moom suñu père la. koo xamante ne moo moo la tëye at. waa nga nekk ci keppaaram si wàllu boxe wàllu physique mu ñu si dimbali bu baax a baax. di ñu préparer ay préparer yi mucc ayib. kenn duñu gis sax si ay détails. mais chaque jour dañuy nekk suñu ruq laqatu. xam nga ni fii bu ñu la fa indiwul mënoo fa indi sa bopp. <laughs> voilà te xam nga tamit salle bi tamit complété. ñu fay liggéey. matin bi ñu ngi liggéey musculation saalu fil fitness mu ngi nekk marché Mame Diarra amoo kaat fa la ñuy travailler maa ngi waa yëpp waaw ku si mel ne bébé Elton mu ngi waajal combat ñoo koy bokk di liggéey waaw mu ngi liggéey lu baax mm-hmm. Billy mu ngi si yoon bi di ñëw mm-hmm. ku si mel ni samay raq nag yi nga xamante ne maa ngi ñoom ñoo bokk benn koñ samay raq xam nga tamit tey jii noon naa décourager bàyyi làmb ndax fi ma toll bëri na ay samay morom yi fa toll découragé bàyyi làmb waaye ku mel ni samay raq hmm, wextan wextan ngaylum numéro 2 caatu njagasaar ak bébé guy gi ak guy gi numéro ak ngalaa léegi ñoom taxaw nañ jiitalaat seen mag fas yéene topp ci ginnaawam ñun ñoo bokk benn koñ ñoo bokk benn fu ñu yeewoo kenn ku ne boo xewlee balaa ngaa tourné dara gis sa moroom hmm. kon nag ñooñu muy organiser sasaat ma beneen sas boo xamante ne day nekk sama kanam may taxaw pour defaat benn erreur xalaat moo ko sama aaduna ndax fi mu toll nii préparé nañ ñu ngi préparé ñu ngi waajal suñu bopp pour waajaat si làmb ji indi beneen facette indi beneen pour gën a dundalaat école de per Ndiaga Sarr mi nga xamante ne loolu moom moo nekk moo bi tam ba muy dund ñu fas yéene jàpp jàpp si loolu daal ba loolu gën a jëm kanam sa kaw sa kanam waa di nuyu waat waa Géejawaay waaw di nuyu nag sama waa dëkk waa Fatick waaw ñoom moom mënu maa def émission te nuyu ma leen sama mag yi ne foofu maa ngi leen nuyu rawatina waa Diouroup di nuyu waa Jaxaaw Siin di nuyu waa Ndofane sama doom day waagaan seen sel jigéen bu mag bi ngi koy ziar ko jox wàcc waayam sama xarit la di nuyu waa Jilor waa nuyu sama papa mm-hmm. Maayo di nuyu waa Ndour Ndour bu baax a baax di nuyu waagaan duudam fépp foo xamante ne daal kilifa yee ngi taxaw di jàppale njaga mm-hmm. njaga amul sa fay amul sa wàcc waaye rawatina nag sama waa garage ndax bu dul dara fa laay dem di taqale léeg-léeg bu dëgëree maa ngi si métier man kon xam nañ mécanicien la temps yi nag tàngaay maa ngi defar ay ventilateur fi marché maam jaara mm-hmm. waaw man moom baaxuma dara damay dóor dégguloo ma de temps yi maa ngi si ventilateur muy hivernal muy crown lépp laay defar bàyyiwu ma dara loo xamante mooy loolu ndax fi réew mi toll la. waaw foofu la instant bii. aywa noppil. yaa may dégg. instant bii foofu la réew mi toll.